publicité ci Tektal TV bu baax ñoom ñoo lay fay après ñuy fay lépp africain gisoo affaire cosaan yaa ngi ne ay battu ay façon yooyu gisoo yëpp même saisi lépp euh, africain lay doon ñu ko def comme cosaan macha allah kon Afrique ngeen xam ngeen am ngeen fonk ko bu baax ñii carte nag babi baa ngi di babi moom day lekk sa saas bu baax <laughs> kii daal moo ngi noonu quoi gis ci ci biti. ci biti waaw ñu dem. ci ñoo fay après ñoo ñuy fay lépp africain gisoo affaire cosaan yaa ngi ne ay battu ay façon yooyu gisoo yëpp même service bi lépp africain lay doon ñu cosaan macha allah kon Afrique ngeen xam ne yéen am ngeen fonk ko bu baax. ñii carte nag babi baa ngi nii babi moom day lekk sa xaalis bu baax bii daal moo ngi noonu quoi. Sila Dieynaba Sila mami dafa ngi nii mère fonk la lool fonk lool ak iso ak ñëpp daal ak Tektal TV bu baax a baax a baax a baax kon ñu nii di warantu ngeen abonné ngërëm maya maya Asia Maymuna di soxna si Baye Mass euh, Rahma soxna su Petit Ganga Wade soxna si euh, docteur Wade ñëpp gërëm nañ leen bu baax a baax soxna Kati Sarr gërëm nañ ko Kati Sarr madame baar Bara Ndiaye gërëm nañ ko bu baax a baax a baax a baax képp ku lu bëgg baax rek kon ñun ñii doxantu Paris moom def na droite mi neen ñu Paris wëreelu ñu doxantu bu baax a baax a baax a baax comme ni ko ñoom Sayer Fall di defee ñun moom lañ joxe essence jour ni koy defee ñoom aussi ma nii Mamadou Sow soxna Binet Diop euh, moom ni ngi Belgique euh, ak waa Hollande. waaw fii mooy porte géej bi. Euh, de Versailles ok xel baax a baax kon daal pare nii rëy na nganda te léppay jaar yoon dara d'abord. Mami Danfa Tektal TV Mami Danfa ngoog <laughs> ñu ne li ma pari ah dëkk bi balance filmé nag laa mënul de ngeen bàyyi xel lool de <laughs> mami daal pari daal taw bi mu ngi koy yàq ah. taw bi mi ngi koy yàq. taw bi na bàyyi li muy def nag. taw baa ngi yàq pari. bu mu na bàyyi ñu wëreelu tuuti. famille d'enfants nuyu naa Iso nuyu naa Iso mayel Iso dédicace <laughs> Iso ak euh, Fatou Dieynaba Tour ak Oumou Sila ak Oumou Sila waaw. ak mère Dieynaba ak mère Dieynaba Seydi ak Paa bi ah. ak Paa bi ak Paa bi ak waa Liberté 5 yëpp. waa Liberté 5. waaw ngeen bàyyi xel bu baax a baax kon kii mooy mami d'enfant ñu doxantu biir Paris ak Tektal TV bisimilah tafadal naka dal xewal dikk loraange rek bisimilah. bama spoti pousse leen ñun ñun dañu doxantu dañu doxantu yaa ngi ci biir de maa ngi nii biir kër moom it daaw gis ngeen nga ne kër gi dafa neex waaye dafa neex ambiance bi quoi waay climat bi la climat bi la. kon Tektal TV ah, <laughs> yéen mami borom baax la wax dëgg yàlla nit ku bëgg nit la nit ku mën nit. waay nit ku bëgg seex. waaw sama xarit boo déggee mu naan mami jël suñu toog bii la mami moo nuy yàq ak euh, ah. Tektal TV euh, lu baax rek xewal dikk loraa nga mami mami wax fi de 30 secondes <laughs> waaw kay wax rek kay wax rek <laughs> kay nga nuyu ñu lay seetaan <laughs> bii bu buntu dagg dara la dafay complet quoi ñëwal <laughs> waaw kon euh, ñëwal mami daa xam ñëw sànni leen deux paroles kay leen deux paroles Mohamed Ndiaye mooy caméra am ñëw de ñu bu baax kon daal gërëm nañ mère Dieynaba Seydi gërëm euh, ñoom Iso gërëm tamit euh, ñi seetaan Tektal Euh, ak Oumou Sylla dinañ ko jël mu wax ñu ci théâtre bi wayal ñu tuuti euh, indil ñu lu raar defal ñu guitare Oumou Sylla dina ko def après ñu dem xool jey na ba ci États-Unis mu defal ñu dara Fatou tamit ñu jël ko mu defal ñu dara Tektal TV euh, xewal dikk loraa ngi dakk tey moom it dafa moo fii ci Paris dinu yàq dinu toppatoo man ak Mouhamed Ndiaye agent joueur gërëm nañ ay naa ba ca Palme de Mallorca ñu ngi koy nuyu bu baax a baax baax ay na te tudd gudd gërëm nañ tamit euh, Marga euh, ak euh, Soxna Jaara ak Patricia gërëm ak sun goro yi ca kër gi ca xaj ba waaw loolu yëpp nuyu na bu baax a baax a baax Tektal TV moom it dafa gërëm nañ Patrick ak Norbière ah ak ñëpp su Norbière doon suñu fekk kon daal tey lii moom mi ngi topp ay njaayam njóobeen yi mu ngi loolu kon Cheikh Bara Ndiaye ñëw gaaw fii manqué nga fi. ak kan bay mas manqué ngeen fi fii daal mooy Tektal TV ak Mamy Diafan dinañ laal fii dara tuuti ma xool ma xam lu joxe ah, gis nga ma laalaat waaw ma laalaat gis nga dina indi Oumou Sylla mu defaral ñu bagage bu baax a baax ak Tektal TV ngeen bàyyi xel bu baax a baax a baax kii ma abiyee nag euh, euh, Pape Déthié la nekk fële ca cité Aliou ca Dakar Pape Déthié Teranga Euh, centre traverse port centre moom moo abiyee ci kaw ba ci suuf xewal dikk loraange ndax jëlal ma bi daal <laughs> <laughs> ak Tektal TV xewal dikk loraange ndax tout à l'heure ñu indiwaat leen lu neex ci yéen gërëm nañ soxna May Diop sëñ Fallou Mbacke Diop soxna Zeynab Diop bébé moom Diop ak soxna Fat Jaxate gërëm na suñu xarit nekk extérieur Cheikh Sidi Mokhtar Mangasa euh, Pathé Sey euh, ak euh, maire Oulimata Sow doo maire vingt cinq ans la Oulimata Sow ak ki nga xam ne bañ ñu tudd ko tam baax trop di ñu toggal yu neex yi ak Tektal TV daal xewal dikk loraange nag total ñu wanaat leen leneen ak Mamy Dafa jaajëf